moom benn yoon laa ko gis te corona taxoon moo tax ma ne corona sens sens la ci moom ndax beneen yoon bu ma koy gisaat bu soobee yàlla mooy suy génn fale ma fay dugg. jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi mu mel na kon moom président Ousmane Sonko lépp rek la nga xam ne wax na ko jamono jile nit ñi ñu ngi ciy tekk seeni gët gannaaw ba mu xamle woon na rek kii di président Macky Sall. ben yoon la ko mos gis gannaaw ba nga xamee ne rek corona dal dinay dugg si fii ci sunum réew sa noonee rek moom président Ousmane Sonko xamle woon na ne kii di président Macky Sall bu koy gisaat rek day génn pale moom muy dugg noonee nag mu ko waxee woon noonee la dal di amee gannaaw ba nga xamee ne rek dem élection moom njiit réew mi ak nga xam ne rek ngeemoon na ko muy Amadou Ba mu dal di ñàkk daanu jël bu rëy a rëy ci élection présidentielle yi moom président Ousmane Sonko. ak ki nga xam ne rek ngémboon na ko muy Bassirou Diomaye Faye dal di am ndam lu rëy rëy ci élection présidentielle yi lée loolee waral waxam joojee nga xam ne nag moom président Ousmane Sonko waxoon na ko na mu ko waxe woon noonee rekk la dal di amee niki tay jëlee nak ñu gis image yu rafet rafet foofile ca pale ba mom président Ousmane Sonko ak ki nga xamne rek modi di président Macky Sall ak président Diomaye mi nga xamne nak jamono jëlee moy di jiite sunum réew mi di Sénégal ca noné mom président Ousmane Sonko kaddu yi nga xamne rek mu ngi ko doon fësal sa su nek noné mu ko doon waxé noné rek la amé ba tax na Sénégal yu bëree bëri jamono jëlee di yému ci mom président Ousmane Sonko mi le né rek mom président Ousmane Sonko mi le est ce que nekul né wàcc ci kaw suuf ndax rek la nga xam ne waxoon na ko jamono jile loolee noonee mu ko waxee woon rek noonee nag lay wéy di amee ba tey jile sénégalais yi di wéy di yéemu ci moom gannaaw ba nga xam ne rek ni ki demoon nañu foofu la ca pale moom ak président Diomaye ca noonee nag ñu gis ne mbégte ak bànneex lañ doon dund ni ki tey jile rawatina ki nga xam ne rek moo di njiit réew mi ñu fekki woon foofu la ca pale ba.